حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم yéen mbokk yi ñuy teewlu ci ah, jataayu lasraar ñoo ngi dellusi di ànd ak yéen ci ah, beneen tomb waaye mu mel ni suñu tomb tey ah, ak junj lay doon rek te ñi nga xamante ni si yaakaar naa ni ñi ci bare bari mën nañoo teewlu jataay yi ginnaaw buñ ko teewloo tam eh, am nañ yaakaar ni ñu ci bari dinañ ko mën a defal seen bopp moo tax junj gi dafa jëm ci laaya bi ci eh, di ba'da a'uuzu billahi min shaytaani rajim noonu ngeen ko gisee ci kayit yi mu ni mu di bismillahi rahmaani rahim eh, illa allazina amanu wa amilu salihat lahum ajrun gayru mamnun waaw mooy noonu ngeen ko gisee ci li mu jëm rek lañ leen di junju mooy li nga xamante ni si euh, moo jëm ci wàllu béréb koo xam dafa nekk ci place euh, wala euh, nekk ci place ba yaakaar ba suñ borom gën koo dëgëral ci place ba walla mu gën fa am ay garaat wala koo xamante ni si danga nekk foo xam ni danga bëgg ka nga xamante ni si moom ngay liggéeyal wala ka nga xam ni moom la ngay jëflanteel Euh, mu gën la euh, jox euh, teg teg place waaw wala mu gën laa jox dayoo incha allah waaw kon képp koo xam ne jokkoo nga ak ñun ci loolu rek incha allah dana la ci gën a def ay leeral defal ay leeral ci kàttan yàlla in uriidu illaa l-islaaha ma stata'tu wa ma tawfiiqi illaa billah di fàttali mbokk yi nii jataay bi ak temps bi mu xaw a rek waaye bëgg nañ muy gën a yaatoo waaye incha allah muñ gën a am jàpp rek ci gën a def ak euh, fàttali ci bare bare incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah